أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يبيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي سنو نياريلو درس ci kitaabu tawxiid ci téere cheikh bu mag boobu nga xam ne moom mooy muhammad ibnu abdul wahab rahimahullah téereem boobu nga xam ne ab jullit war na koo jënd waxuma la mu jënd ko waaye ab jullit war na ko teg ci njaganaayam suy tëj suy tëdd mu jëkkoo liir waaye bu yeewoo mu njëkk koo jàng ndax am solo gi nga xam ne téere boobu ëmb na ko samedi bi passé moo doon sunu njëlbeenu dars tey mooy ñaareelu dars tey dars tey bi mawdu bi mooy at tawxiidu wa aqsaamu tawxiid ak ay xaajam waaye doomu ndey lu njëkk mooy war nañu leeral lan mooy tawxiid ci luxa ak lan mooy tawxiid ci istilaax tawxiid ci làkku arab ak tawxiid ci sharia islam ñaar yooyu yëpp benn bu nekk war nañ ko leeral mbokk ndongo yi fàttalante ko ak ñoom ba benn bu ci nekk ñu xam ana lan lay tekki suñ ko xamee ñu jëm koo jëfe bi ci njëkk mooy tawxiid luxatan wahada ay afrada tawxiid ci làkku arab mooy wéetal na wala kennal na baat bi ci làkk bi loolu lay tekki wahada ay afrada kennal na wéetal na li mu gëm kennal na ko li mu gëm nangu na koo wéetal loolu mooy tawxiid ci làkku arab ci istilaax ci sharia islaam ci diina ji nga xam ne mooy lislaam tawxiid mooy ifraadullahi bi rububiya wal uluhiya wal asma wa sifaat kennal yàlla tabaraka wa taala wéetal ko ci moom gi mu moom addina bi moom gi mu moom lépp moom yàlla tabaraka wa taala mooy tawhidu rububiya moom gi mu moom lépp yar ko wal uluhiya yàlla gi mu nekk yàllaay lépp ak ñépp wal asma ñu wéetal ko ci ay turam yu rafet yi moom yàlla tabaraka wa taala yi mu tuddee boppam yonentiyam yonentam yi ñëw saxal loolu waaye ak ay melokaanam yu rafet yi mu melal boppam waaye yonent yi alayhimu salaam ñoom tamit ñu ñëw saxalal yàlla li mu saxalal boppam mbokk yi incha allah ci kàttanu yàlla ci tomb bi muy tawhid ak ay xaajam lii moo nar a nekk tey incha allah dars tey bi te mooy leçon bi ñu war a jël tey tawhid mbokk yi moom mooy pas-pas al itiqaad pas-pas bu nit di fas ci xolam al jaazim pas-pas bi nga xam ne nit bu ko fasee ba pare da ciy dogu ne bi anna allaha taala waahid mu fas ci xolam ne yàlla tabaraka wa taala kenn la yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla amul soxna yàlla amul doom yàlla amul dendandoo loolu ab julit daf koy fas qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mooy mu gëm ne yàlla tabaraka wa taala kenn la wa rabb kulli shay yàlla moom lépp mooy boroomam wa malikuhu mooy buuram ginnaaw moom yàlla ba mu moomee lépp mooy buuru lépp moom yàlla tabaraka wa taala wa huwa wahdahu moom kenn almuttasifu bi kulli sifaat alkamal moom yàlla moo mel ci bépp melokaan bu mat yàlla kese la yàlla tabaraka wa taala moom dong moo am melokaan yu mat yi ak melokaan yu rafet yi kooku suñ koy gëstu ci kenn lañ koy fekk te mooy buur yàlla tabaraka wa taala amul ñaar moo tax mu ne la wa huwa wahdahu moom kenn al muttasifu mooy ki meloo bi kulli sifaat ci bépp melokaan al kamal bu mat sëkk moom yàlla tabaraka wa taala waaye wa munazzahun an kulli sifaati naqs moom yàlla tabaraka wa taala ku ñuy setal la moom yàlla ku ñuy soril la ci bépp melokaan ci bépp sifa ci bépp melokaan boo xam ne dañ koy sifaal ci manqué dañ koy soril buur yàlla tabaraka wa taala yàlla ku mat la yàlla sori na lépp loo xam ne lu manqué la lépp loo xamante ne lu taq la lépp lu tilim lépp loo xam ne jaaduwul kenn du ko melal buur yàlla tabaraka wa taala moom yàlla subhanahu wa taala wahdahu moom kenn al mustahiqu lil ibada moom dongu tabaraka wa taala moo yeyoo jaamu wa taati moo yeyoo topp wa annahu wahdahu al muttasifu bi kulli sifati al jalali wal kamali wal azama moom buur bi tabaraka wa taala ginnaaw ba mu amee ay melokaan yu rafet moom dong mu moom jaamu gi moom dong ñu war koo topp moom dong mbokk yi moo yor bépp melokaan bu kawe bu màgg bu rafet bu mat bu màgg moom yàlla tabaraka wa taala moo ko moom loolu moo tax mu tagg boppam mu ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moom yàlla tabaraka wa taala mu tagg boppam ci suratul fatiha ci ñetti aaya yooyu aaya ñaar aaya ñett aaya ñeent waaye mu tagg boppam ba tey ci suratul bayyina mu ne wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu ddin waaye moom yàlla tabaraka wa taala mu tagg boppam ci suratul ixlaas saar boobu nga xam ne boroom xam-xam yi nee nañ mooy carte dante yàlla qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad mbokk yi lii moom mooy tawxid tawxid nag am nay maana maanaa yi ñett la bi ci njëkk mooy an nu'mina bi anna allaha taala wahdahu huwa alxaaliq mooy dañoo war a gëm ne moom yàlla tabaraka wa taala mooy ki bind kooku tey suñ demee ci tawxidu rububiya suñ ñëwee gis tawxid nekk ñetti xaaj wa yanqasimu tawxid ila salaasati aqsaam ñuy séddale tawxid ñetti xaaj bu njëkk bi mooy tawxidu rububiya te mooy kennal yàlla ci moom gi mu moom ak yar gi mu yar li mu moom loolu lu muy tekki wa huwa al ilmu mooy xam-xam wal iqraar ak saxal bi anna allaha huwa al xaaliq ar raziq al mudabbir moom yàlla tabaraka wa taala mooy ki bind allahu akbar al xaaliq mooy ki bind al mudabbir li haza al kawn lépp li am ci àddina bi nga gis ko gisoo ko yàllaay ki koy def amul kenn ku koy def ku dul moom ci suuf ci asamaan ci biddéew ci lépp lu mu mën a doon ci géej ci jéeri lépp looy xew ci àddina bi loo yëg ak loo yëgul lu ma yëg ak lu ma yëgul lu sunu moroom yëg ak lu mu yëgul kenn ki koy def muy buur yàlla tabaraka wa taala amul keneen koo xam ne am nga loo ciy def ci asamaan nag ci suuf ci biddéew ci géej ci jéeri fu mu mën a doon yàllaay def lépp wa annahu la sharika lahu moom yàlla amul denn ndoo fii mulkihi ci moom gi mu moom wala maabuda bi haqqin siwa waruñoo jaamu ci dëgg kudul moom wa huwa bi kulli shay'in alim moom yàlla tabaraka wa taala lu mu xamul amul moom yàlla lu mu xamul amul lépp la xam amul lu ko fàddu moom yàlla lépp la peeg amul lenn lu ko raw ci mbir yi nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala moo ko moom kon loolu mooy maana tawxid ñaareel bi mooy wa an nataqida annahu subhanahu huwa almuqassimu al arzaq gis ngeen kooku tey da ngay gis ne moom yàlla tabaraka wa taala mooy joxe wërsëg yi ba tey kooku ci tawxidul ulu rububiya la bokk moom yàlla ginnaaw ba mu nekkee ku bind moom yàlla mooy joxe wërsëg yi moo ko séddale moom yàlla mooy tasaare ngelaw yi moom yàlla moo dàq niir yi di leen dawloo di leen doxloo moom yàlla moom moo feesal dex gi moo feesal géej gi moo koy yëngal ci ak ay vaggam moom yàlla mooy wàcce taw bi moom yàlla moo dogal guddeeg bëccëg wa anna allah ala kulli shay'in qadir lii mooy tawxiid ar-rububiyya lii jullit daf koy gëm xam ne yàlla kese tabaraka wa taala moo koy def amul kenn amul ñaar amul ñett ku koy def moom yàlla mooy joxe wërsëg kon dem tim ci bàmmeel di fa ñaan wërsëg ñàkk jom weesuwu ko yàlla dong mooy joxe wërsëg amul kenn wa musarrifu riyah yàllaay tourné ngelaw li nu ko neex mu mu indee ko bu ko neexee ngelaw li jóge ndeyjoor bu ko neexee ngelaw li jóge càmmoñ bu ko ñooxee ngelaw li jóge penk bu ko neexee ngelaw li jóge sow moom yàlla mooy yëngal ngelaw li di ko tourné ni mu ko neexee jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu buur yàlla tabaraka wa taala waaye moom yàlla tabaraka wa taala mbokk yi mooy dawloo niir yi niir yi ngeen di gis ci kaw asamaan di ko seen muy déplacé wu du jóge ndeyjoor du jóge càmmoñ du jóge penku du jóge saw di yëngatu ki koy yëngal mooy borom doole ji mooy borom kàttan bi mooy allahu subhanahu wa taala wal anhaar yàlla yëngal dex yi yàlla moo koy feesal yàlla koy puus bu ko neexee moom yàlla mu ngeeral ko ba mu jeex takk ba nit ñi di gis jën yi tëdd ci dex gi waaye moom yàlla tabaraka wa taala mbokk yi mooy wàcce taw amul kenn kuy wàcce taw ci kaw suuf ku dul jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu waaye wa muqallibu layl wa nahaar mooy tourné guddi ak bëccëg lii ba tey ci tawxid ar rububiya la bokk wa an numina bi anna allah wahdahu huwa alladi arsala rusula ñu gëm ne moom yàlla tabaraka wa taala bokk na ci maanaa tawxid ñu gëm ne moom yàlla tabaraka wa taala moo yónni yonent yi wa anzalal kutub moom yàlla moo wàcce téere yi wa xalaqal ins wal jinn moom yàlla moo bind nit bind jinne moom yàlla moo bind malaayika moo bind montagne yi moo bind rabu àll yi moo bind gàncax yi moo leen saxal ci garab yi wa annahu yuhyi wa yumiit moom yàlla mooy dundal wa yumiit moom yàlla mooy rey wa huwa alxayu alladi la yamuut moom mooy buur bii dund te du dee wa huwa al aziz alxakim mooy ki not ci nguuram ki xereñal lépp lu ko neex mu xereñal ko moom yàlla tabaraka wa taala moo ko xereñal mbokk yi ñetti maanaa tawhid yi buñ ko boolee danañ fekk mu nekk ci tomb bu njëkk bi mu nekk tawhid ar rububiya su ñëwee ci ñaareelu tawhid bi te mooy tawhidul uluhiya danañ fekk moom yàlla tabaraka wa taala muy ki nga xam ne moom ifraadullahi bil ibadi kaddu a dañoo ko war a kennal ci jaamu gi ñu koy jaamu jaamu gi ñuy jaamu yàlla tabaraka wa taala waruñ ci dugal kenn waruñ ci dugal lenn subhanahu wa taala loolu mooy tawxid al uluhiya mooy kennal yàlla ci yàlla gi mu nekk kaddu a suñuy ñaan moom dong lañ war a ñaan wan nazar suñuy nazar moom dong lañ war a nazaral wa zabhi suñuy rendi moom dong lañ war a rendil li mooy tawxid al uluhiya mooy ñaareelu xaaj bi loolu moom mooy lan tawhidul uluhiya mooy jullit bi na gëm ne suy ñaan suy jaamu yàlla yàlla tabaraka wa taala dong lay jaamu al itiqaad bi anna allah wahdahu huwa al mustahiqu lil ibadati kulliha mu gëm ci xolam ne yàlla tabaraka wa taala moom dong dong mooy ki yeyoo jaamu jaamu gi yépp nag nu mu mën a mel nu mu mën a tudd yàlla dong moo ko moom julli yàllaa ko moom waruñu ko defal keneen ku dul moom koor yàllaa ko moom joxe azaka yàllaa ko moom aj yàllaa ko moom jihaad yàllaa ko moom ñaan yàllaa ko moom sàkku ndimbal yàllaa ko moom sàkkoo xettaliku yàllaa ko moom xawf yàllaa ko moom raja yaakaar nëzër wa tawakkul wa gayri zalika min anwaai alibadat almashrua allati yajibu an takuna kulliha lillahi wahdahu yëpp yii yëpp buñ ko boolee danañ gis ne borom bi tabaraka wa taala moom dong moo ko moom amul kenn ku ci am lenn lu ñu war a fell lu ñu lay jox yàlla moom li diwa moom li sàmba moom li demba moom li loolu jaaduwul ci jaamu yàlla gi ñu koy jaamu yàlla moom moom jaamu yëpp jaamu yëpp lépp yàllaa ko moom mbokk yi haza naw min altawxid huwa alladi daat ilayhi rusul façon tawhid bi te mooy tawhidul uluhiya tawhid bi la yàlla yónni yonent yi ñu ñëw di ci woote fa amana bihi almuminuun ñi gëm yàlla moom gëm nañ lii ne yàllaa ko moom xaqan waaye wa ankarahu alkaafiruun lii tawxid bi moom la yéeféer yi weddi woon fa xaq alayhim alazab bañ ko weddee yàlla daal di teg ci seen kaw mbugal wa dalilu qawluhu taala إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية suratu bayyina aya 6 borom bi tabaraka wa taala nee na ñi gëmul tawxid tawxidul uluhiya ñoom ñëpp safara laa leen jëmee te buñ fa duggee duñu génn ixwaatal iman ñetteelu tomb ci aqsaamu tawxid mooy tawxidul asmaai wa sifaat mooy kennal yàlla ci ay turam ak ay melokaanam te mooy isbaatu ma asbatahu llahu li nafsihi saxalal yàlla li mu saxalal boppam wa ma asbatahu lahu rusuluhu wala rasulihi ñu saxalal ko li nga xam ne moom la ko yonentam bi saxalal wala moom la ko yonentam yi saxal min al asmaai ci ay tur wa sifaat ak ay melokaan kama yaliqu bi jalaalihi wa azamatihi comme ni mu yelloo ci màggaayu yàlla ak kattanam ak dooleem moom yàlla tabaraka wa taala min gayri tahrif ñu bañ cee soppi lenn wala taatil ñu bañ cee dindi lenn bañ koo éliminer wala takyif ñu bañ koo melal wala tamsiil ñu bañ koo misaal ñu gëm melokaanu yàlla yi ak ay turam moom yàlla ni mu melalee boppam tur yi mu tuddee boppam jullit daf ko war a gëm yonent yi ñëw saxalal ko li mu saxalal boppam ab jullit dafa war a gëm loolu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam daal di ñëw daal ne lii turu yàlla la yàlla melokaan bii la yor loolu ab jullit daf cee war a yem warul nekk foofu di ko melal naan nii la warul nekk foofu di ko utal sifa waru koo soppi lu mu ci xamul waru koo éliminer ndax ñàkk xam-xamam ndax loolu dafa bokk ci li nga xam ne wax dëgg yàlla mbokk yi ñàkk xam-xam weesuwul loolu ginnaaw ba nga xamante ne yàlla lii la wax yow amoo ci benn dalil rek nga daal di ñëw ne comme man xawma ci dara rek wax dëgg yàlla dama koy dindi loolu day wax dëgg yàlla ñàkk xam-xam kese la yàlla tabaraka wa taala moom moo utal boppam ay tur walillahi asmaul husna fad'u biha na ngeen ko woo moom yàlla am na ay turam am na ay melokaanam moom yàlla moo saxal li mu saxalal boppam nañ ko ko saxalal li ko yonentam yi saxalal li ko yonentam bi saxalal nañ ko ko saxalal ci ay tur ak ay melokaan comme ni mu yellee ci màggaayam ak kattanam moom yàlla tabaraka wa taala ñu bañ cee dind lenn ñu bañ cee éliminer lenn ñu bañ cee melal lenn ñu bañ cee misaal lenn wa hadihi al aqsam alsalaasa ayuha al ahbab ñetti xaaju tawhid yii mutalazima dañoo ànd ñoom ñett benn mënul dem bàyyi boppam bàyyi moroomam munoon ne tawhidul rububiya kese laay gëm bàyyi tawhidul uluhiya bàyyi asma wa sifaat wala nga ni uluhiya déedéet ñett yépp ngay boole sa tawhid mot bàyyi nga ci benn amoo tawhid kullu nawin fiha laa yanfaku anil axar benn bu nekk munta dem bàyyi moroomam ñoom ñett ñoom ñooy ànd fa man ata bi nawin minha ku ci indi benn walam yati bil axar indiwul beneen lam yakun muwahidan musul nekk ku am tawxid ku yaakaar ne kii am na tawxid nax na boppam mbokk yi kon ci kàttanu bur yàlla tabaraka wa taala foog ñu góorgóorlu ci téere bii ngeen jéem cee ànd ak ñun ñu jéem koo fàttalante ñun ak yéen yépp ay ndongo lañ dañuy jàng di jéem a jàngalante suñ ci juumee ñu delluwaat ci kilifa yi ñu daal ñuy gàgganti ñu ñëwaat rek daal di ànd ak yéen ku ci gis tamit ne am nañ njuumte buñ ci def incha allah numéro yaa ngi ci waxukaay bi numéro yaa ngi ci site bi ngeen dimbali ñu jubanti ñu wax ñu foofu ñu juum fan la ñu jéem koo rectifier ñu ne yéen dong ñun ñooyam ay ndongo lañ dañuy fàttalante bëgg mbokk yépp mën a ànd dund tawxiid comme ni ko borom xam-xam yi jàngalee comme ni ko borom xam-xam yi leeralee ngir yàlla tabaraka wa taala dimbalu ñun ñëpp ñu nekk ay muwahidiin ay wéetalkatu yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp yàlla dimbaluñu ba ñu sori feebar bu bon boobu nga xam ne moom mooy bidaa moom mooy shirk nga xam ne shirk ku ko deewaale rek safara nga jëm loolu moo tax ñu war a góorgóorlu ñun ñëpp ñu jàng tawxiid ndax ñu mun a kennal yàlla tabaraka wa taala ñu mun ko wéetal ñu mun di ko delloo njukkal di ko bàkk di ko kañ moom buur yàlla tabaraka wa taala أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته